xam naa ne da am melokaan. femme bi na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo lu ma la bëgg mu ne fu ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man dama indi problème. lii yëpp yaa les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Kër Saner. dofs de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ñu ak Saner ak Mbandoumbé ak Saner ak Ñankou le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7